parce que ku mu dund nattu yàlla moo la ko teg ku ci génn moo la ci génn donc euh, may wax rek ni suñu xarit ak mbokk Pastef yi nga xam ne ak coalition bi yëpp di président Ousmane Sonko jiite bëgg nañ torop ñëw fii tey bu jëkk bi mooy gërëm ko gërëm ko bu baax nag gërëm ko gërëm bu dëggu parce que dañu gisee yàggul yàlla def li mu def la ma duggoon ak lañ ma dugaloon tax ma duggoon ca la mu mais pour des questions de principe et d'éthique mu def ci xeex bu metti je crois que à l'Assemblée à un certain moment sax gars yi ni nañ ko avocat

donc gërëm ko ci loolu gërëm ko aussi ci taxawin bi ak taxawaay bi mais boobu nag mu bokk ko yéen ñëpp yéen waa Pastef mu bokk ko seen i coalition comme ni mu ko waxee li mu wax pour moom lam laa mun wax ci ku nekk ci yéen parce que suñu mbir mi demee woon na noo xam ne je crois que ñu ci bari xamuñu woon wunde gi parce que bëgguñu woon ñun wax yenn yi

entre 2017 et 2019, vous avez accompli de belles choses. Il y a des félicitations. donc nous di féliciter le travail politique boobu ngeen def ak ni ngeen di doxale ñetteel bi mooy waxtaane ëllëg mais xam nga ëllëg ñi gëm yàlla dañ ne yàlla ko mais li war nit ki mooy di sabab réew mu ñu bokk na di ko waxtaaneek di ci jëf di déeyoo di defandoo di waxandoo da ci am solo looloot waxtaane woon nañ ko lu ñuy continuer la parce que Sénégal moo ñu moom ñun moomuñu Sénégal Sénégal la moom Sénégal boobuñ moom ñu nag daf ñuy jaral lu ne comme que kenn rek dong mënoo def lépp defandoo ko waxandoo ko jëfandoo ko moo fi am solo ci looloot waxtaane nañ ba tax na réew mi ñu bokk li mu laaj ku nekk dana ca def la mu war def ci kàttanu yàlla en loolu moo doon solo wax du dëgg de gërëm sant ñaanal ko yàlla na

<laughs> donc euh, ñu ñaanal leen daal liggéey sumba yàlla na ko yàlla mottali yàlla na ko yàlla rafetal di jeexale rekk ci ni lii ñu sumba ñu ngi ñaan yàlla mottali ko te ñun ñëpp ñu ànd bokk def kenn benn wuutu benn kenn bañ a kenn bañ a

et on en tiendra compte. Merci beaucoup.